العام للطريقة المريدية حفظه الله تعالى ورعاه ci ndigalu sëriñ bi ñi ngi nuyu bokk jullit yépp di umma islaamiya bépp di nuyu bokki taalibe yi fi teew yépp di taalibe sëriñ Tuubaa ci ndigalu Cheikh Mahamadou Muntaxa mi nga xam ne moo fi sëriñ tey di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér mu yóbbante nag ñetti kàddu yu waxoon ne naa ko ko wax benn bi ak cant diggam ak taalibe sëriñ Tuubaa bi ci des santal ko jëwriñam sëriñ Mbàkke Fay lu kii maa feeñ ne ci lekk dinaa ci ñëw ba ci res lim ma sant ndax ñëpp xam nañ ne bis bi moo waroon ñëw teewe si ko ñaanal taalibe yi waaye xat-xat yi tax ak yërëm nit ñi mu ne ma doy nga ma ci sëkk bu ma yërëmutoon nit ñi ak seen yaakaar sax kon damay fartoog Tuubaa yónnee du ma ñëw mu ne ma taalibe yi nag yóbbante ma kàddu yi nga xam ne naa ko yëkkati jëme ko ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi bari ñoo dugg ci waxtaan wi rek dañuy nuyu ak Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké mi nga xam ne tey mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké waaye moo fi ës Cheikh Sidi Muxtaar di ko nuyu di nuyu rakkam yi mu àndal yépp bàyyi ko ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaye bàyyi ko ci kër ës Cheikh Sidi Muxtaar ñu di ko sant bu baax moom Serigne Moustapha danaa ci dellu siwaat ndax bis bi bi nga xamee ne jàpp nañ ko ba sëriñ bi wax ne nañ ko ubbi bi mu tegaatee liggéey bi ci sama loxo maag sëriñ Mbàkke yu fay mii sëriñ bi dañoo woolu ba ñu dikk mu wax ma ne liggéey bi de ba ko Cheikh Sidi Moussa di tàmbali génn toon ñu ñett boo ma ne jëwriñ laa woon tey nag maay kilifa ñëpp kon nag nañ ko tàmbalee woon ñett du ñu kon tegaat naa ko ci seen loxo yéen ñaar ma itam ma organisation bi ak taxaw bi dénkaat ko ko ci laa xalaat nekkat alxuraan dafa wax ne wa kullan naqussu alayka min anbai rusuli ma nusabitu bihi fuadak wa jaaka fi hasihi alxaq wa mawizatun wa zikra kon zikra dafa mënta ñàkk ndax nit bu jëfee ba gisatuñ ko ci suñu bët waaye mi ngi ñuy gis ndax wala taxsibanna allazina qutiloo fi sabilillahi amwaatan bal axyaaun inda rabbihim yurzaquun farixiina bima aataahum allahu min fadlihi wa yastabsiruun bi lisina xeqo bihim min xalfihim allaa xawfun alayhim wala hum yaxsanoon kon ñoom ñi ngi ñuy gis te ñun gisuñ leen nitu yàlla nag waxtu nekkee yow ci àdduna ba gisatoo ko boo demee ba mu fàddu say bët bu amoon benn bëtu ñaari bët yu mu lay xoole suñ borom da koy ful ba mu nekk ay téeméer képp koo xam ne dagg nga kóllëre sa digg moom wala sa digg ak seenu njaboot dañ ciy teg seen bët moo tax nag xam yitte juróom ji nga xam ne njabootu Serigne Touba gépp boo ci xesee tudd kenn rek tudd nga jëpp Serigne Mouhamadou Bousso moom Serigne moom ak ci ay doomam da doon marsiyaale Cheikhul Xadim ba ca biir mu wax ne fahumu kan nujuumi man talqa minhum xiltahoo kaana sayyidal axyaari nee na waa kër Serigne Touba ñëpp dañoo mel ne ay biddiw koo ci gis rek da ngay yaakaare mooy sangu tàndeef yi kon koy ci tudd rek loolu la dee Sëriñ Tuubaa defal kon waaye mu am ci ñoo xam ne ca la suñ borom dogale sababu su liggéey bii ndax wax ji sax mën naa gàtt la Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacke daa wax rek aw yoon boo ci amee mag am ci rek da féetewu féetewoo galas waaye nag mbiru Sëriñ boo koy seetantal di ko xool waxtu rek sam xel day gën a dal ndax sëriñ Touba bi muy defar dafa seet lu mujj mu tàmbalee fa jëm kaw moo tax lu mujj rek day gën a baax day gën a jag boo seetlu woon tey seeti Serigne Touba yi ñi ci gën a tuuti nga xam ne maa leen mag fuuf man de ñu ci xam ñëpp xam naa ne ñoo ma gën a fuuf ñoo ma dàq jàmm yàlla gën maa jub gën maa bëgg lu baax. gën loolu nag kiimaaru Serigne Touba la Serigne leen ko fàggul waaye boo xoolee ci ñii nga xam ne ñun ñi suñu doom lañu Serigne Cheikh Thioro lim seere ci Serigne bi wax ko ku ko dégg da nga xam ne Serigne defar nday setam ndax wax ji am na fasaa leer na te dëggu na kon daanaka ku ci yemoon doon na sëkk Serigne Xaadim Mbàkkeem Cheikh Sidi Muxtaar moom itam. moo leen gën a doon gone boo déggee kaddu yi mu wax nga xam ne kaddu gu ma fi yëkkati rek mën na ko wax nga dem ci Serigne Modou Bara Abdoul Khadim wax naa ko léegi ne ko tey li ma yëgoon ab yi yëg ci sama dégg Serigne Touba lépp wax nga ko ndax man dama bëgg Serigne Touba ba sama xol dara xajaatu ci lu ma bëgg Serigne Touba la tawfeex ju ma suñu borom defal la ndax xam naa ne lu ma sëriñ Tuubaa rek mën naa ko muñ lu mu sëriñ Tuubaa it mën naa koo ñàkk yàlla dimb na ma itam sikk sàkk moom daluma sama digg sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa mu yaqin la am ci mbirum xalaatuma dara ci yoonam ndax wóor na ma ne bu ma déggee koy xalaat di tiit ci mbirum yoon wi dama naan kii de xamul sëriñ Tuubaa am na kenn ci set Sëriñ Tuubaa ku baax bëgguma tudd aw turam ndax xamu bëgg na ko ko tudd ci mboolam dëkk dañoo mas di waxtaan mu wax ma wax ju yéeme loolu jàgg na deux mille trois la woon mu ne ma képp koo gis mu bokk ci Sëriñ Tuubaa di jéem a fexe leneen ci wàllu àdduna dafa yaakaar ne mbirum Sëriñ Tuubaa yi bu ñu àggee waxtu sàngam mu jeex mu ne man naa gaaw njëkkante lijjante sama bopp ba bu yëf yi yàqu ma ma mucc ci mu ne waaye nag mbirum Sëñ Tuubaa du jeex ndax yoon wi Sëñ Tuubaa ko yoral boppam amul kenn koo xam ne yaa ngi wéet ci sa biir kër wala sa biirum nekk di def lu yokk yoonu mu te yoon waa ngi yokk waxtu wu ne mu ne nag dañu waroon a am ngoro bu ñu wóoree ne bu ñu àggee 2007 li ñu Sëriñ Tuubaa fàgguloon jeex ñu gore nag yemal ñëpp foofa nag ku fa xoole danga xam Sëriñ Tuubaa kon ñi jëkk wërisu leen a fàtte ndax Sëriñ Saaliwu ni ma ko fàttale woon moo naaloon naal wi kerew sax yàlla def na may ñëw waaye ma xaw guddee bi ma agsee fekk ndaje ma jeex moo jox moo tax la ma ci bëggoon a seere mënuma ko wax waaye sëriñ Saliou Mbacké lii tey bu amee ndax ab tabax balaa taxaw dis koy xalaat am bëgg-bëgg bi am am li ñuy wax initiative bi sëriñ Saliou moo am xalaat bi am bëgg-bëgg bi defar plan bi ba teg xeer wi ba mu koy tàmbali itam li ma waxoon moom moo ko bëggoon a tabax ci xaalisu boppam ginnaaw bi président Abdoulaye Wade ne ko dama la ko bëgg a tabaxal sëriñ Saliou nag ne ko man duma jeexal sama yëf ak yëfi nguur kon naa la bàyyi nga liggéey ba fa nga mën a yem la ci des ma àggale ko loolu mooy cosaan li ginnaaw bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw yàlla defal ko tawfeex moom itam na ko kilifaam bu tedd nga defoon Cheikh Mouhamadou Fadel ndax jumaay Touba ji ñeenti sor la woon la ko Cheikh Mouhamadou Moustapha defoon Cheikh Mouhamadou Fadel bi mu dikkee yokk ci juróomi soroon moo am taw féexi barab bii sottee ci ay loxoom te yooyu jamono président ab Wade moo ko yëkkati woon joxe ko nettali naa ko barki démb Serigne Mbacke yi fay mii moo ànd ak Pape Diop dem ca moom bi nga xamee ne gàllankoor yi amoon na te sëriñ Abdou Aziz Al Amin moo tax ñu koy ñaanal suñu borom dolli ay reeram ay leeram ndax jëmm la ju baax joo xam ne ab defarkat la woon ku bëggoon ñëpp àndandoo nekk benn rawat na diggante Touba ak Tivaouane mu def ci lam man ba suñu borom dogalu ko bi barab bi dikkee nag Cheikh Mouhamadou Bara suñu borom def mu tombé ci biir ak xilaafam mu yokk ci juróomi sorool te xeer wi keroog kàddu yam doon yëkkati man mi maa ko wax ci aw yàlla def nag bi mu fi bàyyi ko 2010 Cheikh Sidi Mokhtar ñëw toog jataayu Serigne Touba bi mu agsee nag Serigne Touba ku ne ak lam la dencal ku ne ak lam la liggéeyloo Masaalikul Jinaan ku ko tudd faaw saw xel dem ci Cheikh Sidi Mokhtar ndax. bi mu fi bàyyi ko bu ko neexoon ubbi ko ndax la ko jëkkum at fekk na biir gi àgg décoration bi àgg bañ def ci bunt yi ba def ci liñ ci war def làmp yeeg yëpp àggoon na bitti gi li ci ëppoon àgg na kon lii sëriñ sëriñ bi nett léegi sëriñ bi sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar ku kiimaan la ndax sëriñ Touba ku fi teg rek nga ko waaye damaa gis mu yàkkamte woon ko lool ba mu desee at genn wàllu mu jekk-jekki fu mu kuti daan waxtu àggee baax na kon mujj na xam ne ndax Cheikh Mouhamadou Moustapha wax nañ ci ñu ko jege ci jëm ci jumaay Tuubaa ji mujj na wax ne jumaa ji de wàllu jàmbur da cee ne kon Cheikh Sidi Mokhtar mujj gi day wax ne waxtu àggee baax na kon xamoon na ne day mel du ko fekke waaye fekke na ko ndax suñu musuwaay ngi di toog jataayam bii mel na ne Cheikh Sidi Mokhtar ak fi sëriñ bi nag def ci jëf ju bari ndax lim fi lim ci def ci alal kenn xawu dum toll doo doon na sëkk ci moom ci xilaafa bu liggéeya toon kër Sëriñ Tuubaa ga ca dara ma naan liggéeya jumaay Tuubaa ji liggéey yeneen liggéey yi ngi liggéey Serigne Touba ci Touba Massalikul Jinaan doon na sëkk ndam Cheikh Sidi Moukhtar ndax loolu la suñu wër ba wax léegi rek lim ne lam liggéey Touba moom lay jëfal Serigne Touba lii Serigne Touba da koo faye noonu rek la jàpp noonu rek la deme kon loolu tawfiix xama du ko suñu boroom defal bi nga xamee ne agsi na nag woo ma bis yónni ma ci président Abdoulaye Wade xamal ma ne boo demee nee ko liggéey bi de xam naa ci yéeneem xam naa ne bu ma ko bàyyee moom it dana ko def waaye dama bëggoon mu bàyyi ma ma woote ko ànd ko taalibu Serigne Touba ndax xam naa ne lu ma Serigne Touba diggal la noonu sax la ma ko waxee ma ànd ak maître ma di keñam dem ca moom waxtaan ca ak moom ba yàlla def ñu déggoo ca ma dellu si waat sëriñ wax ko sëriñ bi yónni ma ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ne ma boo demee nga woole ma ko mu ñëw xamalaal ma ko ne ko it moom laa def jëwriñ ci liggéey bi ma wooyu ko mu ñëw sëriñ bi tegaat liggéey bi ci loxoom teg ma ci teg ci ba Mbacke fay kon nag bu suñ borom dogalee tey liggéey bi dem ba sotti yàlla def tawféex lu bari daje si ci kiimaan ndax bis bii tey ci la waxtaan yi di tëj ndax suba Seex Mahmoud Muntaxa dafa waxoon ne ajjuma ji dara xaju si lu weesu xëy julli ji kon ndaje mu ñu def rek nañ ko def mu jëkk ajjuma ji kon tey la ñu tëj bis bi mujj ci ndaje yi ñu tuddee ko Cheikh Sidi Mokhtar Serigne Bakk yi ñëw di jébbale si caabi yi Cheikh Mahmoud Moustapha teew kon mel na ne Cheikh Sidi Mokhtar mi ngi teew kon Serigne loo gis ci mbiram rek nekkut li ñuy wax sut fa kon nag moom jëmm la joo xam ne de kiimaaru Serigne la ndax li tax muy kiimaaru Serigne wax nañ ko fi léegi ko gis lim jël def ko ci yoonu yàlla te mosu koo def di ko faj di ko feeñal wala mu di ko wax te boo ko fekkee ca barab barab ba mu toog muy barab boo xam ne amu ci benn boo xam ne ginnaaw bu doonee suñ Tuubaa defaraat na ko foo ko ci fekk jiit na xalifa suñ Tuubaa kon moom tëltoon dara mas na maa wax bis ne ma ba may dooru jógee Gabon ca mu di ma limal li mu def ci liggéey bi daan na ma de gone yi de nee naa leen faggulu leen àlla duma ma leen fi bàyyil dara li am lépp àlli Sëriñ Tuubaa ci Sëriñ laa koy def waaye nag fàggoon na leen loo xam du jeex mukk mooy fàggoon na leen Sëriñ Tuubaa te am na ko ko wax léegi fu ngeen génn rek man ngeen a siggi ndax du ngeen seen kenn barus ndax seen jëfi waaye ñim leen yare kon ñu ngi leen ñaanal di ñaanal sëñ Moustapha ndax nit ku baax la na waajuram meloon rek noonu la mel ci na waaye juróom meloon rek jikko jooju lañ xam ci moom nit ku dëggu la koo xam ne foo ko bàyyi fa koy fekkaat lum la waxee nar na ko kon dañ koy ñaanal ni ko suñu borom defee mu njëkk a wutu Cheikh Mouhamadou bari ci ay sëtam yàlla na fa jëf-jëf joo xam ne kenn du ko fàtte bu mu ko di ñaanal mboolem ñu topp ci ginnaaw ñoo itam suñu borom aar leen sàmm leen mot li seen yéene ci barke Sëriñ Tuubaa bu loolu jàllee nag ñuy nuyu ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom mi nga xam ne moo fi teewal président Macky Sall di ko jottali kàddu sëriñ bi ci président Macky Sall di ko sant di ko gërëm bu baax ndax li mu koy gërëme mooy barab bii lu mu fi jëf 2012 la ma yóbbantoon ci sëriñ bi Cheikh Sidi Mokhtar ne ma jumaa ja dama caa dama ko cee bëgg a jàppale jàppale ko nag xaw ma ba xam dama koy def ci biir tabax bi wala salle de conférence ba wala institut bi laa koy def ma ne ko xam naa liggéeyam de lañ fa soxla ci ay tëli ak i éclairage ak assainissement nga defar ko ak làmp yi waaye tabax bi nga bàyyi ko sëriñ bi mu tabaxal ko bopp moo koy gënal ba ma accès waaye nag ma ne ko bu ma àggee dinaa ko wax ni ma ko waxee ba ma ko waxee sëriñ bi sëriñ bi ne ma noonu laa ko xalaate woon kon moom itam sëriñ bi nga koy sant ci taxawaay ci li nga xam ne jëf na ko ci barab bii ndax man na juróom-ñetti milliards yoo xam ne def na ko fi kon nag boo ko fi jëfee Serigne Touba la ko jëfal Serigne Touba mi ngi ko jëfal nag moom moo ko fi nekkal kon mi ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal la mu ko waxoon keroog ba mu fi ñëwee ne ko bu njëkk damaa teewloon Serigne Touba waaye léegi nag tàmbuli damaa ñaan nee na ñaan googu ma ko waxoon mi ngi koy ñaanal ci barkeb Serigne Touba suñu borom mu dal ci moom ndax moom yàlla du ko defal ndimbal seen diggante rek. sëriñ bi da ko wax ne ko yàlla mi ñu dajale jamono moo xam lu tax nga am ci man yaakaar yaakaar jooju nag moo tax ma jël sa ngir dénk ko sëriñ Tuubaa kon moom man mi fekke jataay xam naa ne wóor na ma ne lu mu am ñaanu Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko may ndax réew mii kat réew moom kenn du fi falu te neexul sëriñ Tuubaa ndax mësta am kenn du fi falu ba àdduna tukki te a Serigne Touba ndax Serigne dafa liggéeyal borom ba boromam fayee ko àdduna fayee ko àdduna ak alaaxira man la kani dunya wa uxra samadu maa indahu lixtaarahu muhammadu kon teewlu gam teewlu Serigne Touba ne kat àggoon na sax ci ne ma moom kat lim bëgg weesuut ma ñaana ko mu faluwaat loolu nag kon damay teewlu Serigne rek. Cheikh Mouhamadou Mountakha nag kooku xam ni mu dëddu àdduna bu teewloo Sëñ Tuubaa lu mu bëgg Sëñ Tuubaa defal ko kon nag loolu tawfeex la ju am seen diggante ministre Aly Ngouille Ndiaye ñi ngi lay nuyu di nuyu délégation bi nga àndal te buñ ci tuddee Mbaye Ndiaye ministère d'État tudd ci morgom Ngom tudd ci Arona Coumba Ndoffène am Arona Coumba Ndoffène Diouf waaye tudd ci nag suñu doom du suñu jarbaat Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne ci suñ biir la nekk waaye mi ngi foofu ci yéen nekkal fa Touba di ko ñaanal moom itam lam ca bëgg a def yàlla na ci jëf lu dajeeg bëggu suñu Touba te suñ boroom dimbale ko ba du fa def mukk loo xam ne gàkk-gàkk la diggam ak Serigne Touba ndax Serigne Touba ko fiir la ci ku bokk ci moom kon yàlla na ko ci sàmm dox diggam ak lépp loo xam ne. afatul wala kadru ginnaaw bu loolu jàllee nag ma ñëw ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha li ci des li ca jiitu sëriñ bi de nee na mi ngi sant taalibe sëriñ Tuubaa yi nee na taalibe yépp nag mu ngi leen di sant ndax moom kat fii mu toog amatul benn yëg-yëg wala benn bëgg-bëgg lu lu jëm sëriñ Tuubaa nee na taalibe nag xam nañ ne seenu bëgg sëriñ ak seenu jeex ci sëriñ Tuubaa amatub àpp seenu jël lépp jëbal ko sëriñ Tuubaa yi ko moo tax nee na ak cantam ci yéen ndax nee nag jëf jii kat ak jëneen jëf yëpp lu ci taxaw rek seen posté fa ab te addiyee nag la ci sëriñ Saliou Mbacke daa wax rek addiyee du tuuti moo ko doom jooyam ab doom mooy ab caabi neen na caabi xeebu ko du ci dara kon ni ma ko waxee woon barki démb rek nee na ka ci jëf benn dërëm te sa xol toll foofu wala sa kattan toll foofu mi ngi lay ñaanal Sëñ Tuubaa yàlla la ko na ko fulal mu doon ay milliards kon lu ci waay jëf rek ndax suñu borom kat noonu lay faye boo ko lebalee benn mu mu mu fayee la fukk man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha wa man jaa bi sayyi'atin falaa yujzaa illaa mislahaa suñu borom boo ko fayee benn boo ko lebalee benn mu fay la fukk boo ko lebelee lu baaxul nag lu baaxul la ko fa lebal moom la lay delloo ndax lu baaxul daa ci moom kon ñu ngi sant ñëpp ci biir loolu nag sëriñ bi nee na gërëm na leen mi ngi leen di ñaanal ci sëriñ Tuubaa mi nga xam ne xam na ne seen bëgg-bëgg ak seen yaakaar. ak seen lépp ak seenu dund ak seenu dal lépp jox ngeen ko Sëriñ Tuubaa ñaan ni ngeen ko joxe Sëriñ Tuubaa nag yàlla na ko Sëriñ Tuubaa nangu la noonu bu loolu jàllee nag ñu ngi sant Sëriñ Mbàkke yu fay sant gi nag lu kéemaane da ci am ndax bi muy jox àddee ji léegi di ko jox sëriñ bi da cee boole ab kaamil Sëriñ Tuubaa nag kooku ma a jox ab kaamil ku ne am na lu mu daa jàng tafli ko sëñ bu baax na suñ ma sàmba moo ma ko leeraloon ne ma sëñ am sur jaxate moo ko kon loolu lu wër la bi ma ko jàngee tafli ko ci nag ma tombeeg aayow ma shahid naa illa bima alim naa loolu lu kiimaande la kon li ma nar a seere ci moom suñ borom dama koo dëggal kon te dafa santaane boo xamee ci nit lu baax bu ko nëbbu kon sëriñ bi sëriñ Bakiyu Cheikh Mahmoudou Mountakha nee na mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax liggéey bi kat nee na ca Cheikh Mahmoudou Lamine Baara ba mu duggee ci sa loxo ba ci Cheikh Sidou Moussar nee na loo ci mas def moo ko daa ànd yow di ko seere nee na gis na sa yitte gis na sa pëstéef gis na sa taxawaay nee na nag xam na ne wax na la ko léegi ci quatre heures bi ma woowee woo la léegi am kàddu yu mu doon santaane wax na ne wax na la ni la xam naa ne de sonn nga ci biir sonn nga ci biti ndax sa jëmm fekkewu ko sa alal fekkewu ko waaye nag nee na seen seere képp nga war a soxla am muy sëñ Tuubaa nee na moom nag doo na la sëkk seere sa digg ak sëñ Tuubaa na la bul am bëgg-bëgg bul am looy xalaat nee na doy loolu ngërëmu sëñ Tuubaa te bu ci dool dara nee na liggéey bii nag lim lay ñaanal mooy yeneen liggéey topp ci waaye ndel wër laq nga ci ngërëmu sëñ Tuubaa ndax nee na xam na la ndax lim ñëw sa kër dal fa nga di ko ganale bari na xam na ceew lu bari waaye nee na gis na ne ba nga tàmbalee liggéey ba nëgë ne amatoo benn soxla loolu liggéeyu Sëñ Tuubaa bi nee na li nga bàyyee sa yitte na ngir jëm Sëñ Tuubaa nee na bu ko nit ñi xamutit na nga xam ne Sëñ Tuubaa xam na ko sa loolu lañ soxla kon nag nee na mi ngi lay sant bu baax fak cant tàmbale ba fa mën a yem la ca des nag lu may seeree la ci lu ma xam ci maandoo gi maandoo ci liggéey bi ndax am na ci loolu sax neexuta nettali waaye xam naa ne daal waxuma la di ci wàññi gërëm waaye li ci dugg ci àllam kenn xawut nu toll ba ci fan yee ci mujj kon ñu ngi koy sant di ko gërëm la ma ci gën a yéem nag ndax alal sax nit ba doo ko yëkkat di ko joxe waaye néew na ci juróom-ñaari at yi ma woo ko te fekk mu ne ci barab bi néew na ma woo ko mu nekk këram léeg-léeg mu ne fi ba mindi ba onze heures ci guddi ba ci gaawu dimanche kon loolu bu fekkonte ne dëggalu ci diggam Sëriñ Tuubaa kon mën na koo tàmbali waaye du àgg foofu ba ca di saatat mooy li tax ma xam ne positif kese la ndax Sëñ Abdou Lahad Mbacké dadaa wax ne plan ak positif dañoo nuru waay bokkut plan ak positif nit ñi nag dañ koy jaxase bi bari na koy jëgg muy wax ne muy woote positif waaye bu amul positif plan la boo doxee ba ci biir rek xam ne du positif ñàkk doon positif gi nag fa nga koy xamee mooy Sëñ Tuubaa da ko du nangu bu ko Sëñ Tuubaa nanguwul nag xoli taali bi du ko nangu sëriñ bu Mbacke daana wax ne fu xolum murid jëm rek fa la xolum Sëriñ Tuubaa jëm te liggéey bii bañ koy tàmbali baa ak moom dégg naa ci lu ne dégg na ci lu ne waaye tey histoire atte nañu ñoom loolu na kenn du ko namoo dañ koy sant Sëriñ Tuubaa ndax ba ñu tàmbali fii liggéey bi Cheikh Mouhamadou Mountakha saa su xëyee yenn su ba mat fukki fan ak juróom ci ndigalu sëriñ bi te ba moo koy wax dana ma sëriñ bi de yërëm naa ko ndax gis naa liggéey bi ittee ma bopp kon nag may li may fas yéene mooy du ma amati jenn yitte li fi liggéey bi àggut kon nag loola moo tax lii sotti ba ca di sàttit sëriñ Saliou Mbacke déggoon naa ci làmmiñam mu ne aleele sëriñ Touba de képp ku koy lekk ku ne sa bakkan du ko fekke wala sa dund du ko fekke wala sa jëmm du ko fekke kon képp koo gis mbiram di yokk rek buñ la ko tuumaalee rek amut buñ la ko tuumaalu tam amit yàgg yàgg suñ borom dalay yar ca loolu kon loolu man xam naa ci ak dëggum xam ci ak maandoom kon yàlla na ko suñ borom fay defal ko ci ndimbal defal ko ci tawféex te ki fi nekkee Sëriñ Tuubaa bu la seeree lene laq nga ngërëmu Sëriñ Tuubaa loolu moom luñ ci dollaat aw tagg la woon te tagg tagg doomu aadama amul njëriñ li am solo mooy nit dis ko dis koy ñaanal waaye dis ko tagg tagg amul njëriñ ndax nit ñi moom dañuy wax ne euh, ridan naasi xayatun laa tudrak ngërëmu nit ñi kenn mënu ko am te Sëriñ Tuubaa dañoo jàngaloon dafa waxoon ne bu leen sa bu leen sonn ci sàkku ngërëmul bindee fi ndax ngërëmu bindee fi kenn mënu ko am te ku ci sonnoon ba am ko du la jariñ dara fexe leen ba jubóog borom bindee fi mu gërëm leen bu leen gërëmee nit ñi dañ leen gërëm te duñ ko sañ bañ kon ngërëmul nit ñi amul solo seenoo xasit amul solo ndax Sëriñ dafa mos a woote bis laajte ndax ñëpp ñëw nañ ñooy ko mbàkke ñëpp ñëpp ñëw nañ mooy dañ leen di wax ne ñëpp ñëw nañ ndax woote dëgg ñëpp fekk sele ca nee na yàlla mënu ko kenn daane lu yàlla mayut boppam mayu ko rasulullahi du ko may kenn kon loolu ñëpp dëppoo ci moom kenn mënu ko am ci àdduna waaye nag li am solo mooy doomu aadama lépp lu nekk rek na ko gëm te muy dëgg ci moom ndax bu dee dëgg ci moom rek yàgg-yàgg suñu borom da di atte ci biir cant gi nag ñi ngi gërëm ñépp di nuyu di gërëm ak beral gërëm Aliou Ndiaye ndax moom ñii kat liggéey bi jàmbaar la ci ndax commission technique bi moo ko jiite woon taxaw ca taxawaay bu mat sëkk ndax boo yombutoon ndax contrat boo fekk ñu signé ko ba noppi nga bëgg dindiwaat contrat ba xoolaat ko wàññi prix yi bëgg koo signé loolu yombut loolu ci loxoom la nekkoon moom ñoom ko seqaloon mu sonn ci lool def ci guddeem ak bëccëgam def ci waxtoom ba suñ borom def nañu ci ndam ba liggéey bi la mu waroon jar mu wàññi ko keroog ba liggéey bi àggee ba mu di ma indil kayit yi ngir ñu ma war a signé contrat bi ci la suñ borom def bis boobee ci lañ ko nommé ministre ndax ba mu nekk ci commission booba nekkagutoon ci nguur gi kon loolu ci payoog suñ Tuubaa la di gërëm itam ñeneen ñu ngi ko seqaloon lépp te buñ ci tuddee may sa tur mi nga xam ne ko nekkoon bi. mu yóbbaale ñi ci des ñëpp ginnaaw bu jàllee nag ñu jeexale ci kàddu yi ma sëriñ bi yóbbante ci taalibi sëriñ Tuubaa dafa wax ne li ko indi fii ci ndakaaru ñaari mbir rekk la mooy sant yàlla sant la sëriñ Tuubaa boroomam sant la Sëriñ Tuubaa boroom ci nattu yi nga xam ne suñ boom defoon na ko ko ci ñaari guddi ndakaar yi ñaari guddi ndakaar yi gis ngeen pay suñ borom ni mu mel Sëriñ Tuubaa mu wax nag ne kon yéen taalibe yi nuñ leen di digal nee na buñ jéem amati soxla ci dara la lu lu mbiru Sëriñ Tuubaa nee na taalibe yëpp tàmbalee ci mbiru Sëñ Tuubaa yem ci mbiru Sëñ Tuubaa ndax nee na loolu kat képp koo ci def ku ne na la wóor a fa nga jëm da fa àgg waaye képp koo xam ne yaa ngi jéem a bëgg dara wala nga jéem a teg dara ci sa kanam lu mu Sëñ Tuubaa nee na Sëñ Tuubaa daan la xalseta bàyyi lool te da nga wéeru ak loola kon nag ñëpp nañ delluwaat ci yàlla ndax nee na yëg mbirum Sëñ Tuubaa moo ko tax a jóg nee na mbiru yëg mbirum Sëñ Tuubaa rek nee na mooy ilaayu kalimatillahi al ulya te mooy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah neen loolu képp ko yëkkati fii waaye léegi ñëw fi ngir ndamu ñëw fi ngir puukare kon nag loolu mooy kàddu yam ci jiitaloon la ca des saatit lan wax ci mbirum ma fàttali nit ñi seen digg ak Sëriñ Tuubaa wax ko kon nit la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax daa wax ne nit bu jaayee dara te yaakaar a jot ci njëg ga lam jaay moowutu ko kon ñun dañoo jaay suñ jëm jaay suñu alal jënde ko ngërëmu Sëñ Tuubaa ngërëmu Sëñ Tuubaa mooy ngërëmu yàlla nit nag yaakaaram bu ko fooyee bañ fooyee sa yaakaar rek mooy jaxase mbirum Sëñ Tuubaa ak dara te Sëñ kat waxoon na leen nit ñi de yeyoo na maa ñoom fii jëkk fay jëm ngir wax naa ñu dégg jëf naa ñu gis bind naa ñu jàng kon képp ku réer rek yaa réer sa bopp fii nag bañ ko fi indi ndax li ñuy fàttali ko tey mooy dafa tombeek demu Sëriñ ci géej gi lu kiimaane feeñaat na ci ndax Sëriñ bi ñuy dem ci géej gi samaaniya xijajin illa qalilan lañ ko waxoon mooy juróom-ñaari juróom-ñetti at yu maa ngi tuuti jumaa jii biñ koy liggéey jumaa ji biñ koy liggéey juróom-ñaari at yu tegal tuuti ci lañ koy liggéey kon dëppoowaat nag at yi Sëriñ Tuubaa am ci géej gi kon loolu lenn la ci pay yi ko suñu borom faye Sëriñ Tuubaa léppam kiimaan la ndax fii bañ ko fi wàcce fekk mu ne ci koor bàyyi ko ndar ngir war a dog ñu dóor ko ci déeg bu tilim bu lëndëm bu bari musiba ay ràbb ak lu nekk ne fa waaye nag Sëriñ Tuubaa ci doyloo gam doyloo suñu boromam mu doyloo mu delloo lépp ci yàlla di tudd yàlla ala bi zikrillahi tatma'innul qulub suñ borom nag fayee ko ci la tey guddi gi guddi gi Serigne Touba kere bu ñu ko fi indi wéetoon na lool ñu koy dogal ci bato bi taalibe yi jaaxle ñii di jooy ñii di yëkkat kon buñ demee ba bis bi tey nañ xam ne payu suñ borom rek moo am solo bañ koy dugal ci gaal gi suñ borom xamal ko ne dangay ngay liggéey le rasulullahi sallallahu alayhi wa garanti naa sa agro waaye fam fañ ko jëmoon muy gamoo kat nañ xam ne Sëriñ Tuba lu mu génn gro rek def nañ ko fa teg nañ ko ci barab lu mel ne Carrefour ñëpp di ko romb taw bi di sotti ci kawam ngelaw li di sotti ci kawam yooyu di ko matt tam jaayante ci digg ma borom du geesu du wokkutu amoon na fa ay rabi àll yoo xam ne kuñ mas a mat sa bakkan du ko fekke ba boo delloo ci archives yi sax tubaab yaa ngi wax benn docteur allemand bu fa ne woon bi noonu na benn rapport bu tàng di wax ne fii daal képp koo xam ne indi nga fi nit dañ laa war a àtte rey la ngir xam ne condition yi ñu ko indi woon waaye lépp Sëriñ Tuubaa dékk ko te bëgg ko bu ci wéttali liggéeyam bu tedd bii kenn dimbalewu ko ci kenn gungewu ko ci moom rek moo laxasaayu fas jom dem liggéeyi dellu siwaat indi sérité bu rëy boo xamee lu mu tool rek gàcce ñoo ko toll yóbboon toll na noonu ne fa juróom-ñaari at yu tegam ab diir ci biir noonu lu ne daj na ko fa am na bis muy weeru koor jot mu woor weeru koor ba koor ga jeex benn xaal la bënn bu waxtu doog jotee ak waxtu xadd mu dugal ci baaraam daana àgg ci tumuranke ba lu mu lekk du ko am ndax Sëriñ Tuubaa daawut lekk alali tubaab bi daawut jël seen dërëm yooyu waa dégg ngeen ci xasida ga mu ne jadi li muxnin karimin naafiin samadin laa li daraahimi taati min solaytini Sëriñ Tuubaa da ko jaayante woon ne du lekk seen alal katabtu fil bahri anni laa amuddu yadi am na bis nee xelam dem ci jën li tax Sëriñ Tuubaa jaayante ko bis xelam dafa dem ci jën fekk potu sardeñ yi daan am yónnee ko ko sëriñ bi neen ma dajj ko jëfandiku ci nee na ba noppee ma jël sama raxo raxas ko ci suuf ak lépp lu ma jàppee dana ko setal ba ba ba ngir xet gi dañ ñaana ma noppi yëkkati sama xelima bay bëgg a bind rek muy ne wa minhum lasina yuzuuna nabi nee na mu jaayante ko fekk ci fan yooyu tubaab yi dañuy def bu teg saanee ñu solal ay nit ñu weex ay gone yu bare bare solal leen ay nit ay yére yu weex ñuy wër sëriñ bi ngir di ko xemmeem leef seen diine di ko xamal ne ko boo bàyyee diine lislaam ñëw ci ñun rek da nga am lii Sëriñ nee na ñaar yooyu muñ gi ma ko muñ suñ borom faye na ci fa sens rek euh, Sëriñ Gaawaan yónnee ko fukki nit ak ñaar boole ci ay xar kenn ku ci ne yërum xar àndaale ko sëriñ bi wax ne keesu jën yooyu mu jaayante woon la ko ca suñ borom njëkk a fay mooy mooy xar ya ñee ne gone yu tuuti yooyu ñoo ko daa wëri lay fukki nit ak ñaari suñ borom fay ko moo tax mu wax ne mu wax ne qultu wa jaa famanu sixaari wa famanul kibaari si sixaari am na fa bis ñu xëy foofa nag la tubaab yi noppee ci seeni pexe ngir xam ne ci mënaluñ ko dara dañoo xëy bis dajale seen soldaar sip seet ña ci dàqa tiire fetal ñu dajale leen kenn ku ci ne muy fukki muy fukki nit ngir ñoom ñëpp ñu diirandoo ngir tiire sëriñ bi ndegam pexe mu ne boole nay ko gaynde mënuñu ko dara mu wóof ci kanamam ñu boole ko aw nag nag wa suñ borom yëkkati ay laafa mu naaw lu ne def may luñ ko dara ñu ne kon nañ ñëw faat ba kanam bañ xëyee ñoom ñëpp kenn ku ci ne waaj ba njëkk ba war a tiire rek waa ahlu badri ñëw waa ahlu badri ñëw biñ dikkatee ñoom xamatu fi ne ñoom ñëpp ñu daw ci waxtu fajar bi mu leeree tuuti gouverneur ba fa nekkoon daal tiit lool daal di wax ak ñëpp nee na xibaar bi de bu ko kenn dëggat sëñ bi ne ko bu leen ko waxut kenn du ko déggat mu ne ko ndax dama lay laaj tuuti ndax dangaa am ñoo xam ne duñu ay ay nit ay jinne lañu walla lu mën a doon ndax boo leen woowoon tey ngir ñu jàppale la ci xeex bi ndax boo leen woowoon danañ dikk sëriñ bi nee na mën a ko loo bëgg a wax ay nit nga bëgg a wax wala nu mu demee yaa ngi dégg Serigne Touba nee na ma ne ko li nga wax de dafa mel ni xaw ma li nga wax ginnaaw bi nag am ko laaj Serigne Touba ne ko ña ñoom ñu mu doon Serigne Touba ne ko waa ahlu badri mu ne ko ndax rasulullahi sallallahu ñëwoon na mu ne ko moo doon seen jib kon Serigne nañ xam ne li ko yàlla defal moo ko bind de ilayya qaadallahu maa lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini nee na suñ borom defal na ma loo xam ne mosu koo defal kenn te dootu ko defal kenn loolu itam lu yëmba lu yëmba firi la taalibe Serigne Touba yi Serigne Touba leen gënal seen jëmm Serigne Touba leen gënal seen alal Serigne Touba leen gënal seen bopp loolu kenn mosu ko am ko ru Serigne Touba moo tax ci njaareem bis commandant de cercle dafa ñëw ci sëriñ bi ne ko mbàkke de dañoo jaaxle ndax da ngay laaj ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett ñu ngi laaj nit ñi juróom-ñetti dërëm juróom-ñi dërëm ngir impôt yow ngay laaj ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett ñun sonal nit ñi lool te duñ ko jox yow nag. ba nga ko waxee rek nga ci génn nit ñi dina song ba dina ko jëli ci biir kër dina ko jox Sëñ Tuubaa ne leen damaa bokkute yéen ndax yéen laaju leen ko ngir yàlla deful leen ko ci yàlla man nag man mi leen koy laaj dama leen koy laaj ngir yàlla ñu duma ko jox ngir yàlla ma leen koy defal ci yàlla ñu dellu soit bés ndax mësuñ ko may jàmm ne sëriñ bi dañoo amul jaaxle ndax ñi ñu ngi lay topp ca ba ngay dem gaboo ba nëgëri mësuñoo am ceew jenn firnde joo xam ne def nga ko yépp ay tuuma doon waaye tey nag dangaa def tuuma jure loolu ci sëriñ Saliou laa ko déggee tuuma jure joo xam ne loolu li ci yoon santaane daan yu rëy ci war a tege sëriñ bi nee na loola lu doon ñu ne ko danga dañoo gis nga jële mursali ay jàmm andi leen ci biir réew mi te loolu luwaa bi da ko tere sëriñ bi ne leen fa ma ko jële de seenu tere àggagu fa ndax boobu mursali téyoon ko tere ko fa bu ma leen indee fii itam goreel leen a tax tubaab bi ne tekk ba ci yàgg mu ne ko mbakke lii nga def de bu ko ñëpp defoon ak njaam jeex ci réew mi Sëriñ ne ko man lu may doyee jaam ku gor yi nangoo doon ay jaam doon say jaam lay doyee jàmm kon Sëriñ Tuubaa suñ borom da koo fay bindee fi ñu topp ko te sëñ ko bañ allahu yansurni wal xalqu tatbauni fi l barri wal baxri isa nafin bila darari moo taxoon dafa dafa waxoon sëriñ bi jaxate ne ko Babacar moo na ko Mbàkke mu ne ko sëriñ bi jaxate da ko wax ne ko yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama baay sëriñ Tuubaa ne ko Babacar loolu kenn du ko wax sa ndey ak sa baay lañ la mënal moo la ko mënaloon bu ma la gis fii ñal yaa gën ci man sama ndey yaa gën ci man sama baay kon sëriñ li tax ñu topp ko ay li tax ñu yaakaar ko mooy li mënta ñàkk suñ digg ak suñ borom ci loxoom la ko suñ borom teg kon nag yàlla nañu yàlla dimbale ba ñu topp yàlla nañu yàlla dimbale ba sëriñ Tuubaa nangul ñu suñu taalibe ndax sëriñ Tuubaa kat képp kum nangul sa taalibe doo yàqu ci àdduna doo yàqu ci alaaxira sëriñ Tuubaa xam nga nit ñi dañuy fàttali rek ndax yaakaar naa tudd naa ko daa am ko doon wax neen ndax damaa fàttee tudd président Abdoulaye Wade yaakaar naa tudd naa ko lépp juróom yoon xam nga nit ñi jataay yi dañ koo bëgg a politique te loolu waru kenn waru ko nangu politique ku ne sañ nga ko def ndax man yàlla def na sant naa yàlla bu baax sant Sëñ Tuubaa dafa génne ci sama xel politique xaw sax kii mu ci ko mu jóge xam naa lu baax la jublu waaye waaye mbirum sëñ Tuubaa damay ragal lool ñu koy politique ndax politiciens yi lu fi jaar di jàll rek lay doon li am solo mooy li ñu sëñ Tuubaa defal li ñu sëñ Tuubaa defal bu njeexee nag dañuy bëgg a ci kàmb goo xam ne seytaan dañuy bëgg a seytaan dañuy bëgg am ci ñeen aw ndax ku mën a doon rek muy président Abdoulaye di président Macky Sall ku mu ci mën a doon li nga jëfal Sëñ Tuubaa boo doon toog président doo ko mën a am te gëm naa ne réew moom kenn mënu fee falu te Sëñ Tuubaa joxalu ko yaakaar naa nag kenn ku ci ne man dama seq ak yow bu ma ci xaar ko may fàttali dañu ne nag ku ci ne fa ma ca war a yem ci yem waaye man kenn du ma tàbbal ci di la forcer ci loo xam ne dañ koy def mujj mel ne dañu tey la yoonu mur te yoonu mur kenn waru ko tey la yoonu mur Sëñ Tuubaa rek ko moom tàccu yi bu ngeen déggee ma di ko tere man jataay bu ma toog bu ne bu fekkee am naa ca baat dama koy tere ndax yoonu murit li ñu xamewutoon ñoom sax buñ leen tuddee sañ ngeen fettasu ndax loolu kenn mënu ko bañ ndax kuñ tudd ci saf soppe nga wax ca lu baax sañ ngaa fettasu waaye yoonu murit tàccu moom ñu neesu leen ko li ñu mën a mooy ab yar akuk taalibe ak yëg sab sëriñ ku la defal lu baax nga sant ko ndax ak taxaddusu bi ma suñ boobu da ko santaane dafa wax ne al abdu lam yashkur nii maa lam yashkur man ajraytu neemata ala yadihi kon boo fàttalee ne moom moo joxe pàkk bi loolu yaakaar naa dóoru sëkk ndax jëf du ànd ak wax jëf du ànd ak wax waaye nag li ma leen wax rek jël mbiru Sëñ Tuubaa tey la ko moom baaxut ndax loolu bu ñu ko defee rek dañu mujj dañuy jaxase Sëñ Tuubaa ak leneen te yoon moom Sëñ Tuubaa rek a fi moo moo moo ko tàmbali moo ko tëj lu ci waay am rek la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ba muy tal ba muy taxaw di ñaan ku doon wax ay mil sa am ko woon liggéey moom lépp moo ko liggéeyal boppam kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp fàttewuñ kenn di wax ne rek Sëriñ nañ ko gën a sant bu baax ñaari nett li rek laa ci wax tëje ko jataay bi sëriñ son bi dafa wax ne ndax xar baax sëriñ Tuubaa yi léeg-léeg ñi nga xam ne sax dañoo xaw a taral tuuti dañ naa ma yow sa wax ji dafay daanu ko te waxi daanu ko du ma ko wax man lépp loo xam ne gisuma ko ci mbindum sëriñ Tuubaa wala ma dégge ko ci ko xam ne wóor na ma ne ku wér la du ma ko nettali ndax sëriñ Tuubaa lépp lu baax rek sañis nag koo waxal waaye nag sa sa kilifa doo ko waxal lu mu dëgg ndax loolu nax sa bopp la te mbiru Sëriñ kenn du ci nax sa bopp kon Sëriñ Son bi dafa wax ne dafa am benn naar bu ñu wax bu wax Isma Ibrahim dafa ñëw ci Sëriñ Tuubaa fekk naar bi dafa te am doom fenn fu ne docteur bu ne faju na fa mu tëkku fenn fu ci ne mu ñaan fa mu tëkku bañ yebal ko ci Sëriñ Tuubaa bañ ko yebale ci Serigne Touba itam mu ne damay commerce di dem Gambie ak male kon njaareem la sama yoon naa fa jaar ndax moom dégg naa dafa neexut a gis bu fekkente ne yàlla dimbalaan defal na defal na ma feex ma gis ko muy ak ci man bu fekkente ne gisuma ko it ma continuer sama commerce bi mu agsee njaareem ci gaar bi rek wàcc ñu tekkal ko ne ko demal ca gàddum naar yi dafa am fële Sëriñ Tuubaa daan dalal ba mu fa àggee bi muy cëppee ay bagaasam rek am ndaw lu agsi daan ana Ibrahima naar yëpp ne teg xool xool ne fii de ku tudd Ibrahima doo fi ba mu yàgg ñoo ko laajal ceeb door ak si ba bi ñu ko laajee mu ne lu mu doon ñu ne ko naar bi tudd Ibrahima la Sëriñ Tuubaa di mu ne leen kon du man ndax man maa ngi door agsi te sëriñ bi yëgutoon ne maa ngi ñëw morooma naaral yi ne ko yow kon am nga tawféex ndax sëriñ bi neexut a gis te képp fi tudd Ibrahima kon demal boo demee bu fekkente ne gis nga ko muy tawféex ci yow bu dee yow bu fekkee du yow nag nga gisaale ko nekk moom la sëriñ bi di wax ndax sëriñ Tuubaa suñ borom da koo may lépp yàlla da koo xamal mais allamtani al-ghayba hatta sirtu muntabihan nee na bi mu agsee rek sëriñ ne jàpp loxo sëriñ bi sëriñ bi ne ko yaa ibrahima inna nu bashiruka inna nu bashiruka bi xulaamin ismuhu ismail yow ibrahima maa ngi lay xamal ne suñ borom dana la may doom ju tudd ismail naar bi daal di yéemoom daal di tàllal sëriñ bi sëriñ bi ñaawal ko mu note heure ba note date ba daal di ko jëptu comme fekk ay weer la daa am ci àll bi ñibbisiwaat bi mu dellu siwaatee mu agsi ñu ne ko yow de am nga lu la fi wutu sa ginnaaw mu ne daal lu doon ñu ñu ne ko ba ñu àggee ci bi sàngam waxtu sàngam sa soxna dafa jekki-jekki biir bi di metti taxawul lu mu doon nee na bañ ci jaaxle ba jaaxle ci ndeke da doon matu ginnaaw bu am doom laata ngénte li itam fu nu wër nañ def ba téléphone wut mënuñoo xam ci yow dara dañu ñu àggee ca biis tudd ba sa baay bu ndaw bi moo wax ne nañ ko tudde yonente yàlla Ismaayil ndax yonente yàlla Ibrahima doomu yonente yàlla Ismaayil la tuddoon kon Sëriñ Tuubaa fi mu àgg ci digg ma borom kenn mënu ko natt naar yi moom xar baax yéen a war na leen ko am na naar boo xam ne sëriñ bi da ko téye njaarim di ko yónni ci biti gi bu génnee mënta dégg wolof mënta dégganteeg nit ñi mu dellu si ci sëriñ bi ne ko mbàkke damaa jaaxle wax ko ci arab ndax yónni nga ma de waaye dégguma wolof ñaari sëriñ Tuubaa dóor boppam rek ne ko li ma shahidtum alayna qaalu antaqana allahu li si antaqa kulla shay'in nee na ma tàmbali dégg arab dégg wolof dégg français dégg anglais dégg lépp sëriñ Tuubaa loolu def na ko ki daa wax Mouhamed Fall alxuraan sëriñ son yi bu nee na mooy que sëriñ Tuubaa soloon alxuraan dafa bokkoon ci giir goo xam ne ñoom ku ci mokkul alxuraan rek da ngay jàlle bi mu ci sëriñ bi moroomi naaram ya kenn ku ci ne wax sa bëgg sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa yëkkati xaalis jox la ba mu agsee ci moom mu ne ko man de Mbàkke damaa bokk ci giir goo xam ne bu ma mokkul alxuraan damay gàlle sëriñ bi ne ko sëriñ bi ne ko ne ko dama déglu woon ma ne ko waxal sama sa soxla ma dégg mu waxaat ko ginnaaw sëriñ bi ne ko dama toog ba mu am fan sëriñ bi waxtu juróom yëpp ci jàkka ji la ko daa jullee léeg-léeg mu xëy bis rek bu jugee ci jàkka ji rek waxtu takkusaan mu dóor boppam ne ko iqra mu tàmbalee jàng alif laam miim zaalika kitaabu ba innama sabilu sëriñ bi dóoraat boppam mu noppi ba ca suba si ci takkusaan sëriñ bi génn ci jàkka ji dóoraat boppam mu tàmbalee indama sabiru ba wala tujadlu ñetteelu fan ba sëriñ bi bësaat boppam mu tàmbalee wala tujadlu ba mu ne jënte unaas bi nag sëriñ bu nee na ma ne ko damay la laaj ba xam sëriñ bi ba mu lay sol alxuraan xumus ak ansa yi dala ko solaale warum dét mu ne ko waaw laaj ko sëñ bàkk bu sa ma sëñ Tuubaa sol alxuraan ci kanamam la kon sëñ Tuubaa lim ñu fàggoon kenn xamu ko kon dara waruñu lu may jël suñ lépp jébbal ko bañ koo booleeg dara bañ koo jaxaseeg dara jël suñ dund gépp jeexal ko ci liggéeyal sëriñ Tuubaa ndax sëriñ Tuubaa kat kum gërëm sa àdduna texe na sa àdduna laaxira sa laaxira texe na ndax waxoon na ne képp koo xam ne yaakaar nga ma ku ne dafa waxoon ne sama damir mu takkale yi ngeen di dégg mu di ko wax képp ku ma ku ma yaakaar ku ma yaakaar te jub tàbbi nga ci biir kon nag na xam ne képp ku yaakaar Sëriñ rek Sëriñ Tuubaa fàggu na la àjjana ndax loolu moo ko bind kullu muridin bi yenu su yasaadu innahu min al azaawi baxadu kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan jataay bii képp ku fi teew suñ borom faj say aajo di sant di gërëm it entreprise bi ko doon taxaw muy CDE dama ko fàttewoon moom itam waaye bu ma nee ñu koy liggéey tàbbi na ci biir te ku jëfal Serigne Touba Serigne Touba ñaanal la la wax fir li man baraw bi ne ahar rafiix jooju waaye waxaate na ne waqdi xawaaija lasina daamoo fii xidmati wahab lahu maaraamu naka faj aajo képp ku ma liggéeyal moo tax liggéeyal sëñ Tuubaa moom bu ko nit ñi xaw taw sëñ Tuubaa la fayal boppam ndax nit ñi bu leen leeru tam te sëñ Tuubaa fayal boppam doon sëkk kon ñi ngi gërëm suñu mbokki këri diine yi ndax fii ci Masaalikul Jinaan Masaalikul Jinaan ci la sëriñ Tuubaa taalife xas eh, bay di mi wax ne fa kullu wirdin yuridu murida li xadratillaahi wala dixida kon nag nañ xam ne barab bi taalibe sëriñ Tuubaa yow ko tabax def ko addee sëriñ Tuubaa ndax taalibe yi moom lépp luñ def rek addee sëriñ Tuubaa lañ ko def waaye nañ xam ne néegub yàlla jullit yëpp ko bokk kon sëriñ bi mi nga xamal bokk jullit yi ci réew mi yëpp aje ci àdduna si ne barab bi barabu lislaam la barabu julli ji la kon bokki taalibe yi nañ ko xame noonu bokk julli yi nga xam ne ñoom lañ bokk réew mi tam nañ ko xame noonu ndax allazina taxasu masjidan diraaran wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin wa irsaadan loolu lislaam du ko tere ndax jàkka wërsu doon loo xam ne day xàjjali julli waaye dina war a dajale moo tax la masjidu nussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taqumu fii jàkka ji nag sëriñ bi neen dafa ñaan ndax sëriñ Tuubaa ba ba ñu sampee ñeenti bantam ya ca maayom ba góor ne bi sant sampi bant ya sànni ko ca toilette ba ak la ci mujj xew ñëpp xam nañ ko muy taalif xasid ak rabbana axrijna min hasihi alqaryati zalimi ahluha raditu an il mawla taala lasi rabba fuaadi wa axnaani wa akrim bihi rabba ba mu àggee ci lahum tub salaatan maa salaamin bi alihi wa ashaabihi wa calbihi masjidi rahba suñu borom xamal ko ne ko may naa la ñaari juma te benn bu dañ ci teg sa bët mooy jumaay njaarim ak jumaay Tuubaa jumaay ko Jinaan ji nag ci payu Sëñ Tuubaa yi la tàbbi kon nag képp koo xam ne sa dërëm demoon na ci ne la wóor ne am nga ngërëmu Sëñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa mi tax nga def ko yëpp gis na ko ndax Sëriñ Tuubaa bu dégg naa mu wax ne dafa am benn taalibe bu ñëw ci moom yëkkati addiya ju bari jox ko sëriñ bi sëriñ bi na ko tegal foofu xool ko ndax sëriñ bi loolu alxuraan daw ko nangoo ci loxo nee na taalibe yi ne tekk ba caag mu ne sama addiya yi ni mu bare xanaa sëriñ bi doo ko gisut xam nga sëriñ Tuubaa danaa tontum xel sëriñ bi wëlbatu ko ne ko alam ya'lam bi anna Allaha yara xanaa xamoon yàlla gis na ko waa ji nee na ah ma jaaxle lool nee na ah lii de kenn mosu koo gis kuy tontum xel nee na Serigne Touba wëlbatiwaat na ko allah yaalu man xalaq kon Serigne Touba dërëm bu ko waay jëfal lu mu néew ko pësteef lalee na la ne mën nga ci am payu àddina ak alaaxira kon nag ñu ngi ku fi ñëw na la suñu borom defal tawféex fi ñëw ku ne yàlla defal jàmm ku fi ñëw ku ne yàlla def tawféex ku fi ñëw ku ne aaj joo fi na ko suñu borom saafara. te bisub ëllëg bii nag njaxana bis la boo xam ne bisub ndam la bisu feet la waaye bisu victoire la yàlla na ci Sëriñ Tuubaa tàbbal kiimaan goo xam ne ci réew mii lu ñëpp bëggoon te di ko séentu di ko ñaan di ko yaakaar te leen yàlla na ko suñ doom dogale ci bisu suba bi Sëriñ Tuubaa def mu sottee ci barke Sëriñ Tuubaa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu